الريح في يدي وفي داري وثبته بالهادي الوفي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 di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi ak ci waxtu tedd bi ak ci barab bu tedd bi ñu nekk di ñaan yàlla mu sàmm nu sàmmal sàmm leen di ko dolle ñaan mu bàyyi fi suñu kilifa gu mag gi lu yàgg lool te may ko ak wér ak tal ba mu mott li yéene yi nga xam ne moom la yéene ci diine ji yéene ko ci yoon wi yéene ko ci réew mi yépp te nu àndook ak moom ni ngi dolli sunu ndokkeel ak sunuy ziyaare yéen ñëpp ci xew-xew bu màgg bi nga xam ne moom lañu euh, door a jógee muy fàttaliku suñu sang bu tedd bii di maam jaaratullah di ñaan suñu borom tabaraka wa mu nangul nu mboolem jëf yi ñu ci jëf te nangul nu mbooleem ñaan yi ñu ci ñaan te fulal ñu ko te dencal ñu ko fu yàqu eggul di ci ndokkeel ñëpp di ci ñaanal ñëpp mbokk yi xam ngeen ne xew-xew bu mel noonu wala xew-xew yu mel noonu di baamu ci at mi di dikk di dikkaat ñu di ko màggal di ko fàttaliku wóoru la romb rek ñu ne jàll na neex na xumb na waaye dañ caa war a mën a jële ay bind yoo xam ne mën nañ koo jariñoo fii ci sunu àdduna waaye ay bind yoo xam ne it mën nañoo jariñ fële ca sunu alaxira ndax nett li waaju baax di net nett li ay jaar-jaaram dafa war a am njariñ lu jural ñiñ koy nettali ak ki koy nett li loolu la sunu borom tabaraka wa taala di wax ci alxuraan nett li muy nett li ñi fi jëkkoon ña àndoon ak ñoom la fañ mujj ak ña àndutoon ak ñoom fañ mujj da koy nettali ci alxuraan ne li tax ma di ko nettali nag mooy ñu jël ci bind jël ci ay leçon yoo xam ne danañ ko mën a jëriñoo wa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albaab faqsusil qasasa laallahum yatafakkaruun inna fi dalika la ibratan li ulil absaar loolu lépp li mu wax ne moo tax ñu di ko nettali moom yàlla muy nettali ñi jàlloon di nettali lañ amoon ci la leen ko mayoon ak la ñàkkoon la leen ko xañoon lépp rek dafa bëgg nit ñi jariñoo ko jël ci ay bind jël ci ay leçon yoo xam ne danañ ko mën a jariñoo xew-xew bi nga xam ne moo jàll nag di fàttaliku sunu sang boobu maam jaaratullah radiallahu taala anha mën nañ cee jël ay bind yu bari yoo xam ne am amal nañu njariñ fii amal nañu jariñ fële bind ya nag bari na lool ndax géej la goo xam ne ku ci tànk moom dangay ngay tànk lu la man boo maraatee ñëw naanaat rek waaye kenn mënu ko jeexal waaye mën nañ cee jël ay bind yu fés yoo xam ne moom lu ñu mën a roy la loo xam ne ku ca jéem yàlla mën na la caa xéewal nga raw ca say moroom ba ca jëkk ci bind yooye mooy ñu xamoon ne jaamukatu yàlla bu mag la woon ku fa dem ba gis lam am ñu laaj la kii lim am lu ko ko may la ci njëkk ca la ngay wax mooy ab jaamukatu yàlla la woon boo xam ne xamoon na li tax yàlla bind ko xamoon na li tax yàlla indi ko fi wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yabudun doon na ko it defee na ko yàlla diglee ak na mu ko bëggee kon loola lañ cey mën a jëlee mooy jigéen bu fekkee jàpp na ci diineem ni mu ko war a jàppee jàpp gu dëgg gu sell mën naa àgg ci ay daraja ak i kiimaan yoo xam ne góor ñu baree baree bari munuñ caa àgg loolu bu ñu demee ci alxuraan danañ ko gis sunu borom tabaraka wa taala ni mu digee góor ñi ay daraja noonu la digee jigéen ñi ay daraja buñ jaaree ci yoon wa koy maye yaa ayyuha nabiyu qul li azwajika in kuntunna turidna alxayata addunia wa zinataha fa taalayna umatticukunna wa usarrixkunna saraxan jamila wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wa addaara al axira fa inna allaha aadda lilmuxsinaati minkunna ajran azima loolu waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa la ko yàlla waxee woon ne leen su ngeen bëggee yàlla mu jaral leen ko bëgg yonent bi mu jaral leen ko ngeen def seen ci seen kanam àllaaxira mu jaral leen ko su leen ko jaralee rek yàlla mi ngi leen di waajalal yool bu rëy rëy rëy rëy bu nekk ci seen kanam yàlla nag lu mu ne rëy na ëpp na doomu aadama mënu koo xëyma kon sayyidati jaaratullah misaal la woon mu ñuy misaal lu bari ci jàpp gum jàppoon diineem ak jaamu gum doon jaamu yàlla boo demee ci minanul baaxil xadiim sëriñ Bachiru radiallahu taala anha moo koy wax ne kaanat alwalidatu jaaratullahi saalihatan dayinatan afifa kathirata alsalaati walsawmi walsadaqa qaimatan bi waajibatiha baynaha wa bayna rabbiha nekkoon koo xam ne ku yiw la woon ku yiw la woon nit ku yiw la woon loolu rek doyoon na waaye mu ne ku amoon diine la woon loolu rek doyoon na waaye afiifa la woon mooy ku jomb la woon dafa am diine te am jomb am jomb mooy jomba def lu dul noona jomba wax lu dul noona kenn du ko séen wala nga di ko di ko dégg muy wax wala muy def loo xam ne jomb na nit ñi dégg ko wala nit ñi gis ko kon melo yooyu yépp melo yu jaamu yàlla la melo yépp melo yu kuy sedd yàlla ci sa bopp la moom sayyiduna jaaratullah nekkoon na koo xam ne doon na taxawee loolu kon bépp murit wala bépp jigéeni murit boo xam ne gëm na loolu war naa melowoo melowu mel noonu doon ab jaamukatu yàlla doon ab toppkatu yàlla te yàlla moom loolu teqalewu ci góor ak jigéen yim teqale góor ak jigéen jaamu yàlla bokku ci takaalifu shar'iyya da caa yemale góor ak jigéen lu dul rek loo xam ne natiiru jigéen ak natiiru góor moo leen moo tax ñu wuute wa waaye ñoom ñëpp la yamale wa maa xalaqtul jinna wal insa la wax innal muslimina wal muslimaati ba ca aaya ba lépp góor ak jigéen la ko boole kon ku màgg li ba ñëw li ngay njëkk a jël ci bind yi mooy kii ma fekki woon kat ab jaamukatu yàlla la woon bu mag ku bari woon lu muy julli la ku bari woon lu muy woor la ku bari woon lu muy saraxe la ku bari woon lu muy def ay wari garam yépp ci wàllu diine kon lan laa ko war a royee ca loola mooy fas yéene jéem a topp mbooram ca loolee melo beneen melo bi ci des mooy ba mu defee loola ba wàccoog boroomam ba noppi nag mu jéem a rafetal ak àndam ak ki nga xam ne moom la ko yàlla boolee loon muy sëriñam muy sëriñ Mor Anta Sali ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu digalee jigéen yi mu ko digal nga xam ne moo koy tax aj tabi ajana muy topp boroomam la ci njëkke ay ay wari garam digganteem ak boroomam loolu moom ki am borom kër ak ki amul borom kër ñépp la ci yàlla yemale wàccool ak sa borom ba noppi mu ne na boo ca noppee nag loo cay teg mooy wàccoog ki la yàlla dénk bu fekkee yàlla dénk na la kenn nga wàccoog moom soo defee loolu yàlla day ubbi bunti àjjana yi ne la tànn ci bu la neex nga dugg ca booba soo wàccoog ñaar yooyu wàccoog sa borom wàccoog sa sa sëriñ isa sallat il maratu xamsaha wa saamat shahraha wa xafisat farjaha qiila laha udxila aljannata min ay abwaabi aljannati chit loolu su yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ci jigéen kon ñaar yooyu mooy yi jiitu ci warugaru jigéen mooy sàmm digganteem ak boroomam matale ko waaye sàmm digganteem ak kilifaam gi ko yàlla booleel ci lépp loo xam ne ak topp la goo xam ne ci lu génnul ndigalul yàlla lay doon loolu di lu màgg loo xam ne xam ngum ko xamoon moo tax mu doon ci góor góorgóorlu lool ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ koo laaj na ko kan moo gën a màgg àq ci man ci jigéen jigéen ban àq moo gën a mag màgg ci jigéen mu ne zawjuha ayu nnaasi azamu xaqan ala al mara qaala zawjuha ki gën a màgg àq ci yow ci nit ñi boo dee jigéen ju am borom kër mooy sa borom kër moo gën a màgg ci yow donte ne waajur yàlla sax góor ki gën a màgg ci ay àq ci moom mooy yaayam waaye jigéen ki gën a màgg ci ay àqam mooy borom këram mu ne law kuntu aamiran ahadan an yasjuda li ahad la amartu lmarata an tasjuda li zawjiha li adami xaqihi alayha aw kama qala rasul sallallahu alayhi wa sallam su ma doon digal kenn muy toroxlu di wàcc di sujootal eh, nit kon ma digal jigéen mu sujootal borom këram ngir àq ju màgg ji nga xam ne yoral na ko أكبر الله أكبر أشهد أن لا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

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام kon noonu la àqi borom kër réyee ci jigéen ba nga xam ne sax su jaamoo yàlla te tofalu ca loola day mel ni yàlla amul soxla ci jaamam googee wala tarumi taata allahi bila taati zawjika taqiyi zil ula soxna jaara nag nekkoon na koo xam ne dañ daan joxe ci moom misaal ci rafet gum rafetaloon topp boroom këram ci lu dul sax xissa yi nga xam ne danañ koy nettali mu bari lool am ca yu wér am ca yu wérut waaye ba ca la ca gën a wér mooy barab boobee mu nekk rek ñu denc ko fa tey dara yóbbuwu ko foon lu may topp ndigal dara yóbbuwu ko foon lu may rafetal ab àndiin ndax sëriñ moon Anta Sali moo fa demoon gàddaay ngir jihaat ca jihaati Mabaja ba mu rungee kilifa yépp yóbbu leen foofa ca loola lañ ko yóbbaale mu ànd ak eh, kilifaam dem ca barab boobee nga xam ne bañ fay dem jafe woon na lool metti woon na lool ñàkkoon na ay jumtukaay lool ba léegi si nga xam ne jumtukaay yi bari na lool waaye ku fa dem xam ne fii ba fi jumtukaay amutoon metti woon na lool tàngoon na lool waaye mu muñ lépp ci muñ gu rafet liggéey fa liggéey bu rëy ci diir bu gàtt ba yàlla moom ko fa ñu rob ko foofe kooku ak payam doonut lu dul la yàlla wax ci alquran dikk ko ña nga xam ne ñoo def lu mel noonu rek wa man yaxruj min beytihi muhaajiran ila allahi wa rasulihi summa yudrikuhu lmawt faqad waqaa ajruhu ala allah ñi nga xam ne dañoo jihaad dañoo gàddaay jihaad génnee seen kër dem jihaad ci yoonu yàlla gàddaay dem ci yoonu yàlla ak yoonu yonent bi sallallahu bu ñu fa desee yàlla nee na seen jihaad ja na la ñu war a am lépp ci ab yool danaa leen ko fay bismillah kon moom loolu rek doyoon na tegtal ci rafetal àndinam ndax jamono yooyu moom ko ndaw la woon lu toll ci digg ndawam jugee ci biiri bokkam jugee ci biiri cosaanam dem ci réew moo xam ne amoo fa mbokk amoo fa cosaan fekkiwoo fa alal fekkiwoo fa ndox fekkiwoo fa dara àll bu bu bu ne yàng te dara newu fa nga fekki fa borom kër sonn fa coono bu tol noona kon loolu tegtale na rafetal gum rafetaloon ànd gum ànd ak sëriñam ak ànd gum ànd ak eh, ka nga xam ne moom la ko yàlla booleeloon kon foofa it jigéen du fa dem ba delsi war a xam ne kii tëdd fii kat tey lu ko fi indi woon rafetal topp gum topp borom këram ak sëriñam moo ko fi indi woon kon yow nga natt sa bopp ne ma ndax loolu mu meloon bu ma li melut it ndax maa ngi ca yoon wa ndax aw naa ca yoon wa ndax maa ngi rafetal ni muy àndeek sama sëriñ ndax maa ngi topp ndigalam ndax maa ngi bàyyi ay tereem loolu war nga ko caa jàpp boo melut ni kooku it da nga raw sa morom yu baree bare bari bokk na ci jikko yi nga xam ne war nañ koo royee soxna si it mooy niñ ko melale nag ku xëroon la ci yar ak njabootam ak njabootam coono yu bari ci liggéeyu kër ga ak liggéeyu sëriñ ba ak yépp teewutoon mu xër lool ci yar ak njabootam ndax yar njaboot responsabilité ñaari waajur la waaye cërub jigéen ji nag cërub ndey moo gën a màgg jam rawatina ci jamono yi ci nga xam ne xale bi mënul boppam dara foofu yàlla dafa def ci jigéen loo xam ne na muy mën a yore kooku defu ko ci góor mu mën koo yore noonu loolu jagale jigéen jagale ko loolu soxna jaara nag xamoon na responsabilité boobu bu baax te doon ko joxe gën jaar rafeti joxin boo demee ci meneen lu baaxil xadim sëriñ Bachir mi ngi nettali ne wa kaanat turabbi awlaadaha ala almuruati wa diini wa tahaara wa kathiran ma taxki alayhim xikayat alsaalihin nee na ku xëroon la ci yar ak njabootam yar ay doomam ci jikku yu baax ak ci diine ak ci laab daan leen nettali nettali yu sell ci maam yu baax yi fi jaaroon la la taxoon ñu am lañ am la leen ko may mu di leen ko nettali ni ki xiyaamul li ak yu mel noonu yépp mu di leen ko nettali ñu di ca jeexital lool ba wax nañu sëriñ bi sax loolu jeexitaloon na ci moom ba da daan génn guddi te booba sax takkilifa guñ ko booba am nekkagul koo xam ne kuñ takkilif la nekkagul mag waaye da daan dégg nettali yooyu di ko xemem ba bu guddee mu génn dem ca àll ba wala mu dem ca pénc ma di fa taxaw taxaw nga xam ne day taxaw ba ba set rek xamul sax luy julli ci saayir mu taxaw fa rek ngir xemem yooyu nga xam ne soxna si bi nga koy nettali ci eh, gaa yu baax yi loolu nag mooy mooy bi nga xam ne moo gën a am solo bokk na ci gën a am solo ci yar gone mooy at tarbiya bil qissa di ko nettali li ñuy wax ay léeb loolu duy léeb loolu ay dëggantaan la ay nettali la yoo xam ne dëgg la mu di ko nettali gaa yu baax yi lii moo leen mayoon lii lii lañ defoon lii lañ defoon lii lañ defoon di ko nettali njaboot ci jamono yu toll noonu nga xam ne amuñu euh, xàmmeeguñu loolu day jeexital ci ñoom noonu mu jeexitaloon ci sëñ bi noonu lay jeexital tale ci ñoom ndax nit ki day miin jaamu yàlla da koy tàmm alifan nuska wal ibadata wal xalwata tiflan wa hakaza nujabaaw gaa yu baax yépp dañoo miinoon lu baax ba ñuy doon ay tuut tànk lañ ko miinoon biñ màggee mu nekk seen baax ñu di ko doxee responsabilité boobu nga xam ne moom la soxna si yégoon nag bàyyi gu ko jigéen ñi bàyyi ci jamono yi nekk moo waral yii ñuy gis yépp ci ay jadd jàdd yoo xam ne gone yi ñu ngi koy jadd mboolem inxiraafaat yi ak jàdd jadd yi nga xam ne ñu ngi koy gis jigéen amatul responsabilité ci doomam am na benn woykat boo xam ne bu taabir na loolu waxee ko waxin wu rafet laysa al yatimu man intaha abawaahu min hammi lhayaati wa xallafaahu dalila inna al yatima huwa alladi talqaa lahu umman taxallat aw aban mashquula nee na ki ñàkk waajur yatim du koo xam ne daay ñàkk waajur ndey ak baay rek waaye yettim mooy ku am ndey am baay sa baay sa ndey amatut ci yow soxla sa baay talatu la sa ndey amatut ci yow soxla sa baay talatu la ngir ittee àdduna nee kooku mooy yettim dëgg dëgg dëgg kon soxna si moom xamoon na loolu bu baax a baax ba di ko jëfandikoo di ci yar ak njabootam bokk na ci li ñuy royee soxna si tam mooy am nañu ko yàlla boolee loon ca kër ga mu seq ak ñoom sëñ moot Anta Sali waaye séq gëm ko séqee na ñoom daf koo rafetal rafetal goo xam ne dañ cey dóor misaal ba léegi si ña ko yàlla booleeloon te dafa bokkoon ak ñoom ci ak bokk deret bokk askan waaye bokk ak ñoom sëñ moon anta sali tam waaye nañ jàppee woon bokk googe dañoo jàpp ne kenn ku nekk da ngay mottali sa morom noonu la war a jàppee li ñuy wax wujje noonu lañ ko war a jàppale kenn ku ne defee ne daa am lu sa morom mënut yow yaa ko man nga mottali ko ca loola kenn ku ci nekk jàppee boppam loolu ñu doon dimbalante ci lu baax alal birri wa taqwa wa taawanu alal birri wa waa loolu noonu lañ doon àndee di dimbalante ci lépp loo xam ne lu baax la ak lépp loo xam ne lu ragal yàlla la te te te yàlla bi muy digle euh, rafetal dëkkandoo kooku mooy dëkkandoo bi gën a jege nit ki mooy ki ñuy wax àndandoom ci wàllu borom kër wu jëm mooy ki gën a jege ki ko gën a jege ci ci wàllu dëkkandoo kooku mooy mooy mooy mooy mooy wujju te sunu borom tabaraka wa taala dafa digle ñu rafetal dëkkandoo boobu waabudullah wala tushriku bi shay'an wa bi walidin isanan wa bi dil qurba wal yataama wal masaakin wal jaari dil qurba wal jaari junubi wa sahbi bil jam rafetal dëkkandoo loolu dafa bokk ci jikko yi nga xam ne bokk na ci yi am solo lool te ñooñu ñooy dëkkandoo yi la gën a jege soxna si nag doon na ko rafetal rafetal ga bokk na ci rek lu ñu ci mën a tegtaloo lu bari mooy bi mu wootee wooteem bi ñëkk ko njëkk a topp mooy ay doomi baayam ñoo xam ne bokkut ak ñoom ndey wala bàyyi la bokk ak waaye ñu topp ko ba mu wootee rek dañ ko ñoo ko njëkk a topp loolu la muy wane ba noonu suñ jamono jii eh, bu si diggante ba rafetutoon dañ naan leen seen doomi bàyyi ji gënul leen ndey lu ngeen ko toppee waaye ba mu wootee rek ànd bu rafet bañ àndoon moo tax ñoom ñëpp ñu nangu ngëneelul yàlla li mu jëf ci ñoom ñu xiirtal seen njaboot ñu topp ko toppin woo xam ne bu rafet la bala cay juddoo lii lépp juddoo ci lii daal ay bind la yoo xam ne jigéen ju dem poroxaan ak ju demul poroxaan tey fàttaliku bis bi bu dikkee war ngaa fàttaliku soxna jaara jaamukatu yàlla la woon ndax yow yaa ngi ci soxna jaara toppkatu sëriñam la woon topp gu rafet ndax yow yaa ngi ci soxna jaara ku doon yar ak njabootam la yar bu rafet ndax yow yaa ngi ci soxna jaara ku doon ànd ak ay bokkam yam bokkal sëriñam ànd bu rafet ndax yow loolu yaa ngi ci loolu lépp nga natt ci sa bopp soo amul lépp it màggal gu jot nga natt sa bopp ci benn jikko na fas yéene naa bala maa delluwaat danaa mokkal boobu def ko na nga xam ne noonu la ma ko yàlla digalee wala ma def ci la ma man su dewee ne ma defaat booba su déwee ne ma defaat booba soo melut ni soxna ñi nga xam ne sunu borom tabaraka wa taala daf ne alladina walladina amanu wattabaatuhum zurriyatuhum bi iman alxaqna bihim zurriyatihim ñu baax ñi nga xam ne ñooy seeni maam doon def lu baax su ngeen dikkee roy leen bu ngeen leen mënut lañ mënoon it yàlla dana leen yéegal ci ñooña yàlla daf leen yéegal ci ñoom may leen loola ngir barke boo xam ne amoon nañ ko ca loola kon loolu mooy soxna jaara suñu màggalee ba ñëw nañ def suñu xel ci ne kin fekke woon daa am luñ ko war a royee daa am luñ ko mën a royee te dara mënuñoo jariñ ci moom lu dul bëgg ak roy bëgg ak roy laqad kaana lakum fi rasulillahi iswatun hasana yonent bi li muy rëy rëy yàlla def ne na ngeen ko roy moo leen ciy jariñ sëñ Tuubaa ne roy moo ma ci may lu ma am qad ramma qalbi bil iqtidaai lu ma am ci yonent bi rek roy moo ma ko may salaatu sitta bi mati sitta taatihi batta ma ati saai dama koy tagg di julli ci moom tagg gi ngir wane ay jikkoom julli gi ngir gën koo sopp waaye loolu lépp nag bëgg sopp gi ak tagg gi yépp day ànd ak di ko roy kon ndekete roy mooy maye lu baax ci nit ku baax koo xam ne ku ñuy war a topp la kon yàlla na yàlla dimbale def na nuy roy su su sunuy sunuy sunuy maam yu baax ya nga xam ne ñoo fi jiitu woon ba yàlla yéegal ñu ci ñoom bu ñu jëfut seen jëf yooyu it yàlla yéegal ñu ci ñoom ngir seen barke wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu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 للصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله الذي وفق أهل طاعته لأسباب رضاه واستعمل جوارحهم وبواطنهم فيما يحبه ويرضاه والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وأصحابه الحافظين ما أمرهم به من العزائم أما بعد فيا عباد الله في بعض الأحاديث أن في الجنة نهرا يسمى رجبا باسم شهركم هذا ماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن فمن صام يوما من رجب سقاه الله من ذلك النهر فاتقوا الله عباد الله وأكثروا في شهركم هذا من الصدقة والصيام وتزودوا فيه من نوافل الخيرات والصلاة بالليل والناس نيام وانتهزوا فرصة العمر فكأنكم بفصيحته قد ضاق وبساطه قد انتوى وطهروا مقاصدكم على الإطلاق واعتكفوا فيه على صيام النهار وقيام الليل وشمروا لذلك عن ساق الجد الذيل فإنها أنفع ما يجده المرء في الآجلة وخصوصا في الأزمنة الفاضلة اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين صلاة ترضيك وترضى بها عنا آمين الحمد لله الذي عظم فضله وعم منه النوال والصلاة والسلام على سيدنا محمد وجميع ما له من الأصحاب والآل أما بعد فيا عباد الله قال الله تبارك وتعالى من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في الآخرة من نصيب فاتقوا الله عباد الله وازرعوا لأنفسكم ما تحصدون وقدموا من العمل الصالح ما تجدون يوم يندم المقصر على ما يضيع من عمره ويفوت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت واحذروا أن تمر بكم الأزمنة الفاضلة ولا تعرفون قدرها فإن شهركم هذا أحد الأشهر الحرم التي العمل الصالح فيها عند الله يزكو ويعظم وكما يضاعف فيه جزاء جزاء الحسنات كذلك يضاعف جزاء السيئات وأفضل الرغائب على الإطلاق هو كثرة الصلاة والتسليم على من صلى عليه الملك الخلاق جعلني الله وإياكم ممن إذا ذكر تذكر وإذا آنس نورا اقتبس منه ما تيسر يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين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 الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب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 sami Allahu liman hamid rabbana wa lakal hamd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 Allah assalaamu aleykum assalaamu aleykum